waaw salaamaaleykum wa rahmatullah gars maa ngi ziare ñëpp di leen wàcc seen wàccuwaay baax ma la bëgg bàyyi bañkat ah di xeex ngir Sénégal ah, di xeex yàgg a xeex ngir Sénégal waaw dama ñëw nag pour def benn live bu ndaw di di ziare sénégalais yëpp def benn live bu ndaw rek pour am lu ma leeral pour ñu bëri bàyyi ci xel waaw fii nag la lépp di leeree waaw ngeen continuer ñuy wax ndax fii la lépp di leeree pour mu leer waa temps yëpp gis ngeen réseaux sociaux yi partout waa gars yi may attaqué di ma saaga di ma sosal di ma taqal di ma tuumaal di ma waxal lu nekk <laughs> damay ree rek damay ree ba pare sant yàlla dolli ca la ma santoon yàlla ndax tuuma liñ may defal ni ak takal yiñ may defal ak saga yiñ may defal ci la sama gaay ci kon, metti wul ma xam nga lan motax metti wuma ah damay sante yalla ci ci ci ndekete man ci ab bakkar la lon dox man ci lu salté la man ci lu bon la di di saga ay nit di tuumal ay nit di yak ay deru nit ngir passif di yàq ay deru nit ngir Ousmane Sonko waaye tey jii gën naa dëggal ne dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ndeke ku yeboo moytu parti bi di Pastef ku yeboo moytu ñii ñii tuddee patriote te duñu ay patriote ku yeboo moytundiku gars yi nekk leen ay borom xel ngeen xalaat tuumaal nañ ma lu ne fi mu ne nii tuumaal nañ ma lu ne taqal nañ ma lépp loo xam ne war a mais ci laa nekkoon loolu laa doon def gis nga lii lii ñi may def nii maanaam lii ñi may tuumaal nii di ma ko taqal man noonu laa ci àndee woon ak ñoom di ko tuumaal ay nit di ko takkal ay nit waaye yàlla leeral na sama xel leeral sama bët ba ma génn ci ñi ma koy def ma gën dëggal ne kon man ci lii laa nekkoon te xoolal li ñu may tuumaal yëpp dara nekku ci dëgg barke alxuraani kërim dégg naa ñu ne i sàll jox na ko cinq millions dégg naa ñu ne xaw ma dañ ko futti ci ay jigéen dégg naa ñu amul dégg naa ñu ne waaw ñaanoon na diw xaalis maanaam lépp loo xalaat ci xeetu tuuma teg nañ ko ci sama kaw lii mooy passif saaga menace de mort yee fitna taqal la tuumaal la sosal la Li mooy association des passifs Li moo ko tax parce que ci laa nekkoon mom l'a loon def comme yom ni ñu koy defee nii noonu laa ko loon dem leen sama vidéo yu passé da ngeen gis ñoom ni ñuy def ni, mom la loon def waaye nag dootuma saga, ndax yàlla génne na ma ci dootuma wax nit lu ñaaw ndax yàlla génne na ma ci li des si sama dund incha allah ci kàttanu yàlla dara dootuma jaralati may taxaw di saaga nit wala may wax nit loo xam ne waruma koo wax ngir jëmm benn intérêt benn personne boo xam ne pexeem su sottee senegal day tàkk damay sant yàlla ci loolu seen saaga yi naqadiwu ma seen tuumaal yi naqadiwu ma xam nga man lan moo ma naqadi mooy man tuumaal yi ma laan tuumaal gor ñi saaga ñi ma laan saaga gor ñi man loolu mooy li ma naqadi te lan moo taxoon ma ko def dama nekkoon ci benn parti boo xam ne parti rancunier la ñi ko sos seen idée ak seen philosophie bés bu sottee ci Sénégal ku ci nekk da nga gàddu say dàll daw lu leer laa leen wax dama koy wax di ko répété di ko répétaat ñooñu ñoo taxoon ma nekk rancunier parce que bëgg bàyyi koo xam bu njëkk avant muy dugg ci Pastef ak ba mu duggee ci Pastef nu mu changé nekk saagakat nekk rancunier nekk koo xam ne nii amul leen mais xool leen ñi nekk Pastef ñëpp di def live ngeen xool li ñuy wax jëmale ko ci kilifa diine yi li ñuy wax jëmale ko ci gor ñi li ñuy wax jëmale ko ci bépp doomu aadama boo xam ne ni tey jii nii mosoo xalaat ci sa dund na wax ju ñaaw ji dañ ko teg sa kaw Pastef rek nga koy gisee parce que association buy formé ay nit yu mel noonu lañ man ci laa bokkoon ñoo ma formé woon ci loolu laa nekkoon mais génn naa ci rocceeku naa ci maa ngi sant yàlla ci loolu saagal leen ma fii ba ginnaaw suba saagal leen ma fii ba déwén jéeg du ma fayu leen tontu parce que dootuma saaga dootuma saaga dootuma saaga dootuma xool góor di ko wax lu ñaaw léegi lim fi may dëgg sama tànk mooy xeexal sama réew ci façon boo xam ne moo gën a rafet gën a am teggin gën a am yar gën a nekk façon bu noobul ndeke xeexal sa réew dara gënu koo noobul ci àdduna ndekete xeexal sa réew ndekete amul lenn lu ko gën a noobul ci àdduna xeexal sa dëkk lu noobul la wax ju noobul nga war a génne sa gémmiñ jëf ju noobul acte bu noobul nga war a def kon damay sant yàlla damay sant yàlla ci loolu noonu kon saaga yi mettiwu ma mbir mi mettiwu ma Pastef nag danañ ko dénoncer parce que bokk nañ ci ñu ko xeex ba taxaw waaye xamuñu xamuñoo la nekkoon ca biir ba ma demee ba gis la nekk ci biir ci laa reculer dellu ginnaaw fas yéene taxaw pour dénoncer li nekk ci biir sénégalais bi ma gëm man nga génn sénégalais bu ma gëmul nag mën nga continuer nekk ca biir parce que olof Ndiaye nee na daw ca ba ngay am ay tànk man daw naa ci ba may am ay tànk man bëgg baay bañkat daw naa ca ba may am ay tànk te dinaa continuer di leeral parce que yor naa ay bagages yu bëri pour muy leer da ngeen foog ne bëgg baay dafa génn nii rek di wax ay wax yoo xam ne sans preuve ay wax yoo xam ne dañ koo jox xaar yéen xamuleen li xew barke alxuraani karim boo ko ci coow li xam li xewoo ko gën. boku ci ciowli xam li xew ko gën gis ngeen manifestation yi passé ni manifestation yi nga xamne mo fi mujjé jall ni danañ ci indi lu bari lo xamne danañ ko tek ay audio par audio dana ci def ay live tek audio par audio pour yeen sénégalais ngeen deglu sen bop parce que tungonu du tew ngeen ni netal limay wo ci nit ken xamul num tollu ñep mënuma leen décorer ñi may envoyer vocal ci aduna ken xamul num tollu jamono ji mais ñep mënuma len tontu mais topp leen laay yi lépp dana leer te dana leere fii ci laay yi may def topp leen laay yi lépp dana leere ci laay yi ñii ay yekkatu fitna lañ ñii taalkatu réew lañ ñii li ñuy pexe bés bu pexe la xew Nigéria xew Mali xew ca yeneen dëkk yi nga xam ne ñëpp a ngi taxaw naan leen ndeysaan looloo nar a am Sénégal ndax suñu peree ci seen seen manipulation yi ba pere barke alxuraani karim kaawoo la ñuy yóbbu Sénégal parce que loolu lañ préparé audio yëpp maa ngi te danaa xolal damay lijjanti téléphone rek dama amagul deuxième téléphone mais danaa lijjanti téléphone jël sama temps taal sama live teg audio par audio ngeen di déglul seen bopp te ñu ngeen di dégg seen kaddu da ngeen xam ñii ñan la xam nga dafa am ñu may weddi nee nañ manifestation yi passé amutoon ñu jóge ko biir Casamance jël ay biis ñëw senegal ñëw ñëw dakaar pour yëngal dëkk bi da ngeen weddi ne loolu amul dana tek audio yi ngeen deggal ko sen bop ma ngay bagage yep lima yoro bari daf len dank barke alxuraani karim lima yor ci ay dossier passif yo xamne suñ ko tege ci table bi yow mi indi won sac da nga wat sa sac daw parce que suñu jamu rew mi duñ setan mukk mukk mukk mukk kenn ku ñew diko salfañe dama koy wax diko continuer di wax barke alxuraani karim alxuraan la leni geñal ken fayuma ken jënduma ken momuma man deug lay xex deug jama gisoon ci président Ousmane Sonko ba top wa passif di len défendre dem na ba ci bir ndeke lakalal ci souf xawma ko won waye bama ko xamé la jël tànk ginnaaw daw jël samay bagages daw ca bamay am tank nak parce que sama xel mi kenn momuko sama jëmm ji yàlla moo ko man kenn momuma deug lay xex Sénégal lay xexal ta Sénégal moma gënal Ousmane Sonko Senegal moma gënal Macky Sall moma gënal leader sen buy taxaw sama Senegal ma gënal yalla na sénégal am jàmm way sama Senegal ma gënal ñom ñëpp te mbir mi dana lér ñing may saga nak di ma postel lu nekk amul lu nekk lu ñu doon postel mais yoy yëpp damay comprendre rek man ci la nekkon ci lool la doon dox loolu suñ jukko la non non lañ mel ñun wa passif non lañ mel quoi lool moy suñ jukko yàq deru nit saga nit tuumaal ko waxal ko lu nekkut loolu loolu ci loolu la ñuy dox ñun loolu lañ xam loolu lañ ñu nàmpatal ci loolu lañu nekk waaye gis ngeen saagakat yooyu ngeen di gis noonu ak sosalekat yi ak taqalekat yi ak tuumalekat yi barke alxuraani karim la nekk ca biir a biir su ngeen ko xamoon dootu saagakat yi sax dootu leen wax seeni wax la nekk ci biir a gën a pire téeméeri junne yoon saagakat yi ngeen di gis kon def leen attention parce que réew mi métti na trop Sénégal métti na trop Macky Sall yak na dëkk bi trop ñepp sonu nañ waaye nak luñ sonu sonu nañ jëma xam ci liñuy dugg lan la jëma xam fiñ jëm fan la parce que juggé ko ci coono dugg ci fitna dafa naa nga déssone ci coono bi sax mo gën nga juggé ko ci coono dugg ci tuuxi duuna nañ leen waxante dëgg parce que limay bañal sama réew limay bañal samay mbokk sénégalais lenn kessé la moy suma ma duma ci dugg. su ma yëgoon duñ ko fal ci réew mi ñun yaakaaroon nañ ne suñ ko falee lii nii duñ ko am man loolu lay bañal sama askan moo tax ma teel a dénoncé di teel a artu jeunesse su sénégalais bi surtout jeunesse bi parce que gis naa ne jeunesse bi ñoom lañ gën a réeral gis naa ne jeunesse bi ñoo ci gën a topp gën a nelaw ci mbir mi kon yéen jeunesse bi lay waxal man ci biir laa nekkoon man ci Pastef laa nekkoon gars yi dem leen samay vidéo li ma défendre Ousmane Sonko amul benn mbindee bu mën a taxaw fii nii taxaw di wax ne défendre nga lu toll noonu président Ousmane Sonko man maa ko doon défendre xeetu défendre gu nekk man bëgg bàyyi bañkat waaye nag danaa am ngoro su ma gisee loo xam ne ci biir. suñ ko seetaanee suñ demee ba ci kanam lim mën a jural réew bi man samay doomu réew di dee ñi ne ñoom bëgg bàyyi ñoo fi nekkoon di jàppale kii nga xam ne ni tey moo taal réew mi kii nga xam ne moo rey lu doomu Sénégalais yi kii nga xam ne tey moo yóbbu réew mi ci kaaw loolu gàcce la ci man parce que samay maam samay maamaati maam fii lañ dëkk man du ma ko def kon damay teel a reculer dénoncer ñi ma mën a dégg dégg ma ñu ma mënta dégg nag ñi jéem a toog ñoom ca lañ newoon groupe whatsapp yi ma créé groupe whatsapp yi ma créé wax naa leen li ma xam ñi nga xam ne dégg nañ ma retiré wu nañ baneen ñi nga xam ne dégguñ ma man man retiré wu naa bàyyi leen groupe yi tëjuma groupe yi de amul benn groupe whatsapp bu ma bokkoon boo xam ne dama ko tëj déedéet loolu du affaire de noble damaa rocceeku ci groupe bi wax leen li ma xam man ma bàyyi na leen continuer leen groupe bi ba keroog ngeen tegal seen bëpp bët ba keroog ngeen ni xam li may dénoncer lan la su ko defee da ngeen jëlal seen bopp seen responsable rek ngeen quitté jógee Pastef parce que nekkul parti boo xam ne dafa gën ci réew mi nekkul parti boo xam ne baax na ci Sénégal dama koy dénoncer te danaa continuer incha allah di ko dénoncer te nee naa leen bés bu ma amee deuxième téléphone danaa toog tegal leen audio yëpp ngeen déglu ponkal yi nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy créer violence bi ñi nga xam ne ñooy teg booyu ci cirque ñi nga xam ne ñoom. ñoom ñooy jox booy kër diw ak diw dem leen ngeen taal ko booy def contestant te booy yooyu yëpp fi ñu jugee ko audio yëpp a ngi fi yëpp danañ ko teg un par un benn par benn ngeen déggal seen bopp. ay menace de moor ngeen di def man lijjantiwu ma leen ay saaga ngeen di def lijjantiwu ma leen barke alxuraani karim lu leer réew mi dañ koy teg ci lu leer Sénégal barke alxuraani karim dañ koy teg ci fu leer parce que ñun ñooy borom senegal ñun ñooy doomu sénégalais yi. suñu réew duñ seetaan benn mbindeef boo xam ne da ngay jug rek pour yàq réew mi ba pare dem tey xool leen jeunes yi nga xam ne ñoo dee barki dem ci manifestation yi mais jeunes yi Macky Sall nee na reyul leen Ousmane son nee na reyul leen léegi jeunes yi kan moo leen rey léegi kan moo rey jeunes yi quatorze personnes yi dee nguur gi daw na responsable tam nee na moom reyul leen. nee nañ ñoom Ousmane Sonko ñoo yor ay góon ay feteel ci biir mbooloo mi di dóor booy sénégalais ñii daanu tey jii ni waa Pastef nee nañ Macky Sall moo yónni ay raykatam ñiy ray booy léegi ñi ngay werante ñii naan rey nañ ñii naan ñu du ñoo ray léegi ñi ñu rey ñoom seen i mbokk ana ñu dañoo toog pef justice dafa ci dara amul kenn ku leeral kan moo rey booy ñan ñoo ray booy léegi dañ bëgg a toog di seetaanaat loolu noonu ñu koy toggaat mu war a ñëwaat ay nit deeyaat lu ëpp lii dee deeyaat ci réew mi kaaw dem ci kaaw ñu mën a toog di ko seetaan su ma ko seetaanee man du ma gor te yow mi may déglu soo ko continuer di seetaan doo gor parce que Sénégal sa Sénégal la danga ko war a gëm comme ni ma ko gëmee danga nga ko war a bëgg comme ni ma ko bëggee képp koo xam ne bëgg na fi yee fitna war nga mën a taxaw nga jël sa responsabilité bu ko nangu buñ ko nangu ñu nangu ñuy taal réew mi parce que réew mi tàkkee Macky Sall day buub ay bagaasam dem Ousmane Sonko day buub ay bagaasam dem ñin mënuñoo dem fenn ñun ci réew mi lañ mën a des te su tàkkee ñun ñooy ñàkk kun jël leen seen responsabilité yii ñuy def nii yëpp di wër di joxe ay lekkat di wër di jéem a dugg na fi génn na fi dañuy dox ci seen xel yi mais barke alxuraani karim ñi ŋànk passif ñi ko lal ñi nekk ci suuf su ngeen ko xamoon bés buñ jëlee réew mi billaahi lii may def nii toog nii di live nii toog nii di live nii di wax ak sénégalais yi nii nii di xeexal sama réew bés buñ jëlee réew mi day jeex dootul amati barke alxuraani karim toog di wax ci mbedd mi sax dootul amati ñoo gën a nekk dictateur Macky Sall ñoo gën a nekk criminel Macky Sall barke alxuraani kërim ku contre Macky Sall laa man yàgg naa ko xeex te gëwma Macky Sall te dafa war a dégager abalu ci réew mi te dañ incha allah dañ ci def yeneen live continuer suñu xeex comme nuñ ko laan defee mais parti Pastef di Ousmane Sonko danañ ko dénoncer ba Sénégalais yi moytu ko ragal ko tiit ko bàyyi ko man loolu laa gëm continuer leen di saaga nag. parce que saga ñak argument la danaa indi man ay preuve yu leer tek ko danaa am deuxième téléphone jël samay audio tek ko un par un ngeen ni deglu su ngeen deglo audio yi su ngeen deglo audio yoy yep ma leen di tegal <laughs> su ko defé xolal <laughs> da ngeen xam fi may waxé barké alcorane karim da ngeen xam fi may waxé fan la waaw du lepp lañ mëna wax directement pour ngeen dégg ko pour ngeen xam ko ñun jamm juñ am ni bari na rew yi ñi ci ñe de jamm juñ am ni bari na rew yi ñi ci ñe lu leer la leen tegal man kenn jëndu sos fen tumal amu leen ku ngeen ragala saga amgen ku mënti doon am ngeen am ngeen sañ-sañu dox ci kawam saaga am ngeen sañ-sañu dox ci kawam yonne ko jël ngeen sama numéro na di partager fu nek lool man dama def ma man dama ko loon def mais sant yàlla ba génn naa ci rek xam nga looloon def ba génn ci suñ la koy def ay ree la lay def waaw dama ko loon def te te te yéen te si yéen laa nekkoon daan ko def waaw te gis naa ne def loolu amul benn tiyaaba bi ci nekk ma moo tax maa ngi jégalu képp ku ma mos a saaga ngir Pastef ngir Ousmane Sonko maa ngi jégalu képp ku ma mos a wax lu ñaw ngir Ousmane Sonko wax ma ngir leneen de. ngir Ousmane Sonko ngir pasif, kep kuma ci mos Saga ma ngi lay fekk fi nga tok ma jox la loxo jéggulu la Yalla balu la ak man bëgg kep kuma masa ma Saga Usman ngir Ousmane Sonko parce que ci riir la nekkoon ci ak nelaw la nekkoon di Saga nday rek di wax rek di xasté di wax lu nekk di tek ci ay deru nit di wax lu nekk di tek ci ay deru dom aadama comme niñ koy téggé sama der bi jamono ji may wax ak yow duggu len ci réseaux sociaux man ma xew xeetu daggal bu nekk ñu ma koy daggal xeetu sos bu nekk xeetu audio bu nekk ñu ngi ma koy kereel di ma ko poseel di ma ko monteel lépp lépp lépp ci loolu laa nekkoon ci loolu laa nekkoon waaye yàlla yow mi koy def yal na la yàlla gindi yow miy sos yow miy taxalaate yal na la yàlla gindi comme ni ma gindee ba génnee la ci loolu noonu parce que ngëm yàlla nekku ci tooñ la bàkkaar la lu bon la lu ñaaw la lu salte la mooy li ngeen di def noonu yal na leen yàlla dimbale ba wan leen leer comme man ni ma wanee leer wan ma dëgg ubbi sama xel mi ma gis teg sama bët tax ma dellu ginnaaw yal na leen ko yàlla wanee noonu parce que ndimbalal yàlla la nag ndimbalal yàlla la man damay sant yàlla parce que jàmbaar nekku fi ki yàlla dimbale moo fi nekk man damay sant yàlla man parce que leer na ma leer yàlla ne manifestation yii passé su ma fi fekkoon mun nañ ma rey wala maa ngi ci kaso gi ba léegi ndi koon ñoom frère Ndongo ñoom frère Ousmane Tounkara ndi koon fañ nekk mun naa fa nekk ba léegi su fekkoon fekk na ma fi mais mais man yàlla dimbale na ma dama voyagé woon un mois problème bi soo ko am lépp ci ndimbalal yàlla lépp ci ndimbalal yàlla la kon foog ñu bàyyi suñu xel parce que ñin buñ nangu ay politiciens du ñu moom nangu loolu ñun nañ nangu ne pat ñun nañ d'accord ne ñun ñoo war a nekk patron wu politiciens ñun ñoo war a nekk ñun ñoo war a nekk ñun population Sénégal surtout ñun jeunesse bi parce que manipulation daf fi yàgg looloo ñu dal ci Ablaye Wade ñu jugee ko ci Ablaye Wade jàpp ne dañuy daanu ci si Macky Sall pour mbir mi tene ñu daanu ci si Macky Sall mbir mi gën a bon gën a yées ñi gën a sonn léegi coono googu noonu ñi war a xeex pour jugee ko ci ñu bëgg a jël seen bopp dugal ko ci guuta léegi gën guutal lañ bëgg a dugal ci ñu bopp ñu ngi bëgg a jëm ci fitna te fitna boobu noonu tey jii ni lii may dund nii man moo ma gënal ay rayante may dund xëy taxale benn mille francs benn téeméer bu ma lekk ak bu ma naan moo moo ma gënal ma xëy bëgg a génn sama kër mënumaa génn te soo ma weddee demal ci dëkk yi am guerre dangay xëy di wër kuy jaay doo ko mën a gis dangay ngay xëy di wër loo lekk doo mën a gis loo lekk comme maa ngi am deux am mille francs ak téeméer ak cent francs war koo sante yàlla moo ma gënal may reyante di dóorante ay bal moo ma ko gënal te gis ngeen li ma leen wax nii danaa ci indi ay live ay ay ay live yu gën a leer teg ojo yi ngeen dégg gis ngeen mbir mi dafa garaaw non soo koy wax mbir mu doy waar laa lay wax ni soo koy def ay junj nii sax xam nga duma ko wax carrément su ma ko tegee ngeen koy déglu ci lay gën a leer ci seen biir nopp yi ci lay gën a leer ci seen biir nopp yi. passif dañ ko infiltrer li nek ci souf xamulen ko mais da ngeen ko xam léegi léegi ci souf li nek ci souf passif li lay tay bi yor du Ousmane Sonko passif du Ousmane Sonko de pour mu leer seen bir bopp yi du Ousmane Sonko passif banrange yi ñu nek ci souf ñu ko barke alxuraane këram duñ feeñ léegi ñooñu bës bu Ousmane Sonko jëlee réew mi ñooñu si lañuy installé wu tok jël réew mi former seeni i soldaar ñu topp seen ginnaaw ku wax ñu dóor la bal barke alxuraani kërim kilifa diine yi jël leen seen responsabilité kilifa aada yi jël leen seen responsabilité waajuru sénégalais yi jël leen seen te lii raam ci ñag ba la jëm te ñoo dàq manipuler nag ay xolal ay borom bopp ñoo xam ne nii xolal gis ngeen Pastef ñu nekk ci suuf ak ñoo xarañ ci manipulation ak ñoo dangereux ak ñoo garaaw ay nit yoo xam ne lañ xolal mun nañoo yor état laa lay wax nii xolal not askan téye état ñu garaaw ñoo nekk ci ci suuf ñu dangereux sax yow mi nekk ci coow li doo comprendre yow coow li ngay nekk rek génn ci réseau bi rek taal sa Facebook rek saaga waay waay moo fi gën Ousmane Sonko comme ni ma ko doon defee waaw moo fi gën këram rek nekke la ca biir xamoo ko. yow li ngay yuuxu sax xamoo ko man ndekkee man ndekkee li ma laan wax sax xawma ko man dama loon telli telli rek di dem dama loon retatata rek di dem fu ma loon dégg sama tànk xaw ma ko waaye yàlla moo yàlla moo bari ndimbal yàlla moo yaatu ay ndimbal yàlla moo mën a leeralal nit ba mu teg bëtam loo xam ne ni junne nit añ ci bëggoon a teg seen bët mënuñ cee teg seen bët yàlla mooy leeralal nit ba mu dégg loo xam ne junne nit ko bëggoon a dégg munuñ koo dégg wóor na waaye fii la lépp di leeree bés bu ma tegee audio yi ngeen déglu ko seen bopp boobaa da ngeen comprendre lu bëree bëri bëri bëri <laughs> billaay wallaay tallaay <laughs> war na yàlla lu bëri dana leeral xam nga am na lu bëri lu ñu doon laam-laamee ci ci ci média bi ah léeg-léeg kii génn na waaw ñu doon taal dëkk bi dëkkuñ fii am na ñu ciy rax dugg na fii génn fi nga gis ñu taxaw weddi ko dugg na fii man sax weddi naa ko ci ñu ko weddi si naa bokk dëgg la que du ay fen non ndeke ndeke la ca biir gars yi xamuñ ko wër na rasulullah man duma and ci tapalé man duma and ci tapalé waxon na len ko bu yag na len Ousmane Sonko mi may jappalé bis buma gisé lo xamné mingo wut ak sama rew dana taxaw genn dénoncer ko ta dana genn boy ko côté dem sama yoon man Sénégal la gëm Sénégal ma gënal lepp lu mëna am Sénégal tax may xex suma gisé luy lor Sénégal forcément taxaw défendre ko ta danañ ci yegg légui yagatul kun yow jeunesse bi yeewul yow jeune bi yeewul bil say nopp nga déglu ubbil sa xel mi nga xalaatee ko parce que yàlla boroom xel yi lay waxal wóor na rasulullaay fi ni nii xoolal ah jaxase samay kàddu lañ bëgg parce que li may wax nanguwuñ ma cee tontu. jaxas samay kaddu lañ bëgg léegi li ëpp ci li ñuy débat da gis ñaan noo bëgg bàyyi dañ koo ger dañ koo jox xaalis léegi moom loolu lañ jël def ko modd wax quoi pour di ko gëmloo ay nit di leen xamloo na ne barke alxuraan yi karim kenn joxut ma cent franc alxuraan du ma ko wat ci caaxaan alxuraanul yàlla laa wax ni barke rabbul kaaba amul benn mbindeef bu ma jox cent franc na ma bàyyil Ousmane Sonko wala waxal lii si Ousmane Sonko barke alxuraan yi karim amul man ma gis lima gis motax ma dellu ginnaaw man ma tek sama beut deglu li deglu ma xamne li suma ci andé barke alcorane karim warna sama population suma ci andé warna sama askan ma delu ginnaaw lolo ma lo ginnaaw mais du deureumu kenn kuma lek bu tax man ma may delu ginnaaw barke alcorane karim alcorane duma ko wat ci tiaxan barke bay ñass ñuma gëm duma ko wat ci tiaxan lima lay wax lu leer la waaw man duma nafiq dëgg rek dëgg fi nekk te ci dëgg jooju la ñuy dox Ousmane Sonko moomul Sénégal Pastef moomul Sénégal Macky Sall moomul Sénégal ñoom ñëpp amul kenn ku ci moom Sénégal Sénégal am na lu jiitu ñoom ñuy juddu kun ñoom danañ dee sax bàyyiwaat fi Sénégal muy dem kun Sénégal googu noonu moo ñu war a jaral lu nekk ñu taxaw ko Sénégal googu moo ñu war a jaral lu nekk ñu xool li gën ñu def ko ci Sénégal xool nit ku gën ñu teg ko ci Sénégal waaye waruñoo jël koo xam ne tey jii nii fii la ñuy toogaat encore di rayante di defee affaire di tégat ci Sénégal lolou war nañ ko moytu lolou war nañ ko daw lolou war nañ ko daw man ma fi gennon di len wax Ousmane Sonko mo fi genn man ma len doon ko wax suma ma demee ba ëlbatiku ba gis na ci biir taxawa di len dénoncer na len na len moytu len baxul awma amna ci plein droit amna ci plein droit man ñewuma di tag Macky Sall ñëwuma di tag diw ak diw ak diw ak diw di xalap Ousmane Sonko man li nekk biir Pastef laay dénoncé li nekk ci biir laay yëkkati di ko dénoncé man question boobu laa posé lu sama yoon ci Macky lu sama yoon ci diw ak diw ak diw ak diw man li nekk biir Pastef ma koy dénoncé man ci loolu laa bëgg ngeen déglu ko loolu laa bëgg ngeen tontu ma ci moo ëpp solo téeméeri junne yoon ngeen naan ma ay Macky Sall ak dugg na fii génn na fii génn na fële Macky Sall yéen dem leen ci sama vidéo barki de Macky Sall man du ma ko wàcc yéen xam ngeen loolu bu baax waaw da ngeen foog ne réew mi. Macky Sall rek moo fi bon dañ leen ko gëmloo dangeen ngeen foog ne Macky Sall rek moo pere pour taal réew mi réew mi ñu pere pour taal ko bari nax ñu pere pour indi fitna parti yi gën a bon Macky Sall am na fi bëri na fi yooyu yëpp am na fi kun nuñ mu amee ngor su Macky Sall defee lu dul yoon ma taxaw dal ci kawam dénoncé ko attaqué ko noonu laay amee ngor su ma gisee loo xam ne ci passif baxul ci réew mi té lo xamné suñ ci topé musiba lañuy jural ma génn taxaw attaquer dénoncer ko té dana tek audio yi ñëpp déggal ko seen bop génn samay audio ngeen tek génn ngeen tek samay audio man samay audio lan la ci wax man samay audio lan la ci wax baram sama benn mbokk talib bi ñu wax baraam ñi daane sama place toj sama place ma woo ko envoyé ko audio nako wa dom nday dañu toj sama place de ma loon lijjanti beneen place ma loon lijjanti beneen place te loolu yagna <laughs> dawla won moy berté bi fim jaar parcel loolu dawla won woon ñu bari gis na sétane nañ ko ci bi réseaux sociaux yi ma woo ko téléphone nako ah sa waay sama place dañ ko toj dama bëggon tuuti weccet bu mo motalé xam nga location bi mu bëgg jël xam nga ma ma taxaw di dénoncer li nekk biir Pastef mu jël audio boobu jël ko monté ko ne daloon ñaan xaalis <laughs> ñu jël ko may ko million ma Macky Sall moo ko may 5 millions léegi mu ngi nii bàyyi na fa c'est yooyu ay ree la may def ay ree la may def barke alxuraani kër yooyu ay ree la parce que si laa nekkoon xamante nañ man dama leen xam dañoo xamante barke alxuraani karim la Pastef dama koo xam maîtriser ko ñun dañoo xamante. ci yii lañ nekkoon yi ngeen di def nii ñun ñëpp ñoo ci bokk nekk ay saaga nday attaqué nit xas nit wax lu nekk su ngeen ma koy def man damay yokk sant yàlla ci loolu parce que bàyyi naa ko bàyyi naa saagante bàyyi naa attaqué bàyyi naa lépp man saagaatuma léegi xolal xol bu féex fa yàllaaw laay dund xol bu féex laay dund léegi parce que sama xol bi dafa gëj a sedd quoi sama xol bi dafa gëj a sedd xeexal sa réew xeexu noobul la xeexal sa réew xeex bu ko gën a noobul amul ci àdduna xeexal sa réew dafa noobul barke alxuraani karim wër na rasulullah xeex bu ko gën a noobul dafa am léegi ñi may woo nag ñi may woo ñëpp day leen topp laay fi moo ëpp solo parce que mënu ma leen décorser yéen ñëpp waaw ñi may woo ñëpp mënuma leen décorser da leen continuer di topp laay fi parce que fii la lépp di leeree ci bëgg baay bañkat danañ ko teg pièce par pièce Pastef danañ ko démaxé pour wan ko Sénégalais yi lu leen tax a jug ak lan mooy seen mbir ak lan mooy fondement bi ak ñen ñoo ko créé lépp dana leer incha allah ci kattanu yàlla pour sénégalais yu bëri bàyyi ci xel topp leen ñu rek danañ ko leeral ba mu leer nañ ñu teg ko ci taabul bi dana leer dana leer wallaahi dana leer waaw. moo tax benn gars daf ma woo na moom da cee joxe xaalisam ma ne ko ah jamono jii joxe si sa xaalis jël sa xaalis di ko joxe ci passif mooy fàq yar dóor sa bopp waaw waaw. moy fàq yar di dóor sa bop wun na rasulullah waaw lu leer la leen tegal li nak la ñewon di live euh du guddou parce que lima waron wax yeb wax naa ko waa danañ continuer euh di def yenen live di gëna leral di gëna tek mbir mi ci table bi fan yi nak su ngeen gisee eh, audio yi ah, teguma ko pour ngeen déglu li may wax lan la ak lan la namu ci wax ji ak lan la namu ci jundju bi parce que li may wax ni ay joxoñ la ak ay junj lan laa ci namm pour ngeen déglu ko seen bopp dama amul deuxième téléphone te incha allah ci kàttanu yàlla danaa lijjanti beneen téléphone boo xam ne audio yëpp naa ko fa transféré def live déglu lu leen ko ngeen déglu ku ci nekk su ngeen ko dégloo ngeen dégg ko bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax gis ngeen xoolal yuuxu dana jóg fu ñu ko foogeewu déggu leen ma de yuuxu dana jóg fu ñu ko foogeewu ñun kenn mënuñu nax Sénégal ndimbalal yàlla la am Sénégal mooy dëkk bi am ndimbalal yàlla dëkk boo xam ne képp ku jug pour yee firnde yàlla dana la weer mooy Sénégal képp ku jug pour xañ nit ñi jàmm yàlla dana la weer ba xañ la jàmm yow te ci kanam tuuti da lépp dana leer incha allah kenn du taal réew mi dañ fee ñaan réew mi dañ fee ñaan réew mu barke la réew muñ barkeel la ci barke boobu ak ci barkeel boobu ci lañuy ñuy dëgg suñu tànk di wéyal suñu combat ñu ngi ci xeexu Sénégal lépp ci xeexu Sénégal la li ñuy def nii lépp ci xeexu Sénégal la waaw lépp ci xeexu Sénégal la incha allah ci kàttanu yàlla wër na rasulullaay continuer leen nag saaga continuer leen lépp da leen saaga rek da leen saaga man dootuma saaga bàyyi naa saaga dootuma saaga damay argumenté teg li ma wax ma teg ko riposté dëggal li may wax saaga leen menacé la li ngeen ma menacé yëpp nag ma maa ngi ko menaces yi moom maa ngi koy jot danañ la rey lépp mu ngi man waaw ñi may woo di ma menacé danañ la rey ñëpp maa ngi koy arrêté ñi nga xam ne ñi may woo di ma saaga di ma menacé ñëpp maa ngi koy arrêté lépp maa ngi téye focal yeeg lépp te incha allah danaa dem ci yoon déposé ko képp koo xam ne menacé moor def na ma ko danaa ko lépp danaa ko yóbbu ci yoon teg ko fa pour en lu mën a xew ngeen bàyyi ci xel waaw pour mu parce que li ñuy wax xam nañ ko ak fi ñuy waxee xam nañ ko bu baax a baax a baax a baax a baax kon bàyyi leen seen xel yéen sénégalais yi bàyyi leen seen xel yéen sénégalais yi xam leen li ngeen di topp xam leen li ngeen di gëm man li ma war a def danaa ko def li ma war a dénoncé danaa ko dénoncé li jëntuwuma ci kii wala kële su fekkee na da ngeen jàpp ne réew mi yéen a ko moom ngeen assumé. bu fekkee da ngeen jàpp ne yéen a moom réew mi yéen waa Pastef ngeen assumé barke alxuraani karim fii amul kenn koo xam ne amul kenn koo xam ne dana fi taxaw di jalgati te duñ taxaw assumé wax ko koo mënti doon niñ ko loon defee ci i Sall noonu lañ koy defee ci yéen waa Pastef fekkee yéen a moom dëkk bi dana leer nañ dana leer danañ continuer nag combat bi barke alxuraani karim guerre bu dul jeex la